l'agitateur de Yewwi ki mel ni ñebbi ci cin xamul fu muy toog ndax moom xam na li koy xaar et li ci kanam raw li bët xam na li koy xaar moo tax fépp fu mu dégg ni sax mën nañ ko faara rey dina fa dem ndax lii ñëw ci moom xam na ko te loolu gor su nekk ragal na ko te am na dund boo xam ne dee ko gën ñun xam nañ lu muy dund xam nañ il ne vit pas au fond de lui-même dundul moom xam na loolu on compatit en tant que góor sax ñun on compatit xam nañu dundul il a très mal il souffre waaye na ci boole yar ak teggin xam ni mënta yëngal réew mi il est trop petit pour sax trop on compatit ndax ponkal moo xamante ni da ngaa yor ñaari jeeg ñaar ñëpp dem nañ mënatoo Sweet Beauté tëj na mënatoo vidé loolu nag ngeen baal ma mais dañ koy massawu on compatit ñun ay góor lañ moo tax mu agité noonu mel ni ku dof mais on compatit te wax naa ni ngir jàmmi sénégalais yi ngir jàmmi sénégalais yi ngir sécurité sénégalais yi dafa am loo xamante ni buñ fa àggee tëgg ndënd ak semmiñ la war a doon neex benn naqari benn mbir mi fin mi ñam jàmm beneen wax bi mooy toujours ci ñi fi doon wax démb ñi nga xam ne danoo sàq yi waaw bu la neexee nga ne këtt geen gi xam nga lâcheté lâcheté weesuwul di yóbbu xale yi ñu leen di rey walla ñuy xeex te yow boo santire tu es nga daw te li xew démb du dara mooy ils se sentaient tous menacés mënoon nañoo génn wallahi lazim mënoon ngeen a génn ngeen xool ma ne boo leen génnoon démb di ngeen xam ni bési góor a koy bay boo leen génnee suba bëgg a taal réew mi di ngeen xam ni bési góor a koy bay te loo leen ñu lu mu leen jaral pour ngeen taal réew mi jaral nañu ko ñun pour ñu defar réew mi bu leen jaralee téeméeri bakken pour ngeen taal réew mi ñun jaral nañu junni bakken pour ñu pour ñu defar réew mi lâcheté weesuwul nga ne dangay xas wolof yi xam nañ luy xas mooy bés sàngam su ma demee guerre lii dinaa ko def dinaa dugal sama fetal ci bopp fetal bii dinaa def nii dinaa def nii loolu mooy xas bu bu xeex di am da ngay wax ni yow bés booy xeex boo demee ca xeex ba ca xare ba lii dinaa ko def am na ku fi xasoon ne le 29 dañ koy rey wala ñu jàpp maanaam loolu da leen di won rek ni nit ki maanaam lâche la c'est un lâche deretu gor nekkul ci moom man de bu ma leen nee man man la Diop su ma leen nee dañ may rey suba wala ñu jàpp ma dinañ ma rey suba wala ñu jàpp ma te li ma ko wax moom ne ko dëkk bii man lay doon wala yow wallahi al azim dina am koo xam ne yow loo wax mu dañ loolu dafa doy sëkk ci dafa doy sëkk ci nit ku am xel ak ci xelu ñi ànd ak moom nga xamante ni manipuler la leen toog nañ seen yuur yi cultiver nañ ci seen xol yi ba gisatuñu déggatuñu ana ki fi waxoon ne xalifa Sall day nekk candidat par force est-ce que Khalifa Sall nekk na candidat ani ki fi waxoon ni dootuma émarger tribunal du muy émarger ani ki fi waxoon ni élection du am moom moo toog démb ne élection dina am ko xam nga respecté wul nit ñi respecté wul ñi mu àndal année ki fi waxoon bërki démb ne Sénégal am na 700 détenus politiques dina ñëw ci liste bi yéen journalistes yi ki ko waxoon duy dégg ngeen 700 politique indi politique yooyu fen it ngeen dafay fen ngeen baal ma ci kàddu gi dafay fen moom Ousmane Sonko laax da ngay fen 700 défini politique amul Sénégal ñu ngi xaar liste bi liste bi nga waxoon ni am na 700 détenu politique yaa ko wax ñëpp di dégg 700 détenu politique amul Sénégal da ngay fen le 29 di nga dee wala di la jàpp da ngay fen